yéeni kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndayim si yàlla Aminata Touré ñu naan ko méta di ndaw si ñu faatoon te ñu fekkoon ab néewum ca boori Saara Mbaba Touré ga ca Kolda libération nee nañu am na suspect bu njëkk bu ñu jàppagum ndax jàpp ne loxoom génnul ci ñaawteef yi moom waa ji mandat dépôt nañu ko ba ma nga ca kaso ba ki ñu ci njëkkoon a tuumal ba tegoon ko loxo di Mouhamed Moustapha Mbaye libération nee nañu ba ñu xóotale enquête ba ca la ñu gisee ne du ca dara yoon seetal woto bi topp Aminata Touré Meta moom waa donte ma ngay weddi weddi tuuma yi ñu koy tuumal journal bi nee na ñu terewul setal ko ca yomb ndax enquête baa koy gën di dugal ba tax ma nga ñu tëye ndéegum ca kaso ba tubaab bi ne woon kaso def fa ñaari at Olivier Brice Sylvain mi ci l'Observateur Olivier Brice Sylvain yéenekaay bi mi ngi ñuy mooy préparateur physique bu école football bii di Dakar Sacré-Cœur bi ñu doon tuumal ne da doon saay waxtaan wu ñu doon sàkku ci moom moom Olivier Brice Sylvain li mu njëkk a leeral ci waxtaan wi moo di coowal pédophile lu ko dugal ci kaso bi dara ci amul dañu ko sosal mu di ni mu ko dundee xew-xew bi ñu dund démb ca jam ñaajo di forum international paix et sécurité en Afrique nañu ko dundee journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko dundal ak ñun journal Life di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne njiit Sénégal di Macky Sall wane na ca ndajama yoon wi ñu war a jaar ngir jàmm ako kaaraange sax ci Afrique Vox Populi ne ko moom président Macky Sall ba mu jëlee kàddu ko di wax démb ca ndajama dalaat a yi ñu réglementé réseaux sociaux yi teg leen ci yoon ngir dakkal jëfi yuq njur yi ko loolee la ñu doon càmbar ci ndaje mi ñu ubbi démb ca Ndakaaru te kàddu yu mu nangoo ci président bu réewum Cap-Vert ak i kàddu yu mu nangoo ci njiit réewum Sénégal di Macky wax ne yi am ci réseaux sociaux yi te du yoon li fekk dakkul jàmm ko kaaraange du yomb ci Afrique enquête dina kay nañu waa ONU di organisation des nations unies ñoom it jot nañu seen wàll bu baax a baax ci waxi Macky Sall yi woon démb nee na organisation des nations unies ak ni ñuy doxalee ci tum jàmm mu di seen opération classique de pays gis nañu ne seen doxalin woowee mën a tuta sori soleil national nañu moom président national di Macky li mu sàkku lu mat juróom-ñaari milliards ñu amee ko noone firnde li ne mooy ñoo ngi wax fanweeri million yi ay réfugié yoo xam ne ñoom ñëpp mbirum terrorisme moo leen tax a ngir bëgg aar sa bopp suur soit gis ne président Macky Sall li mu am ne njàqare ci jàmm kaaraangi gi ñu bëggal continent bu Afrique loole la doon leeral démb ci ndajem démb bi ndax nee na bu ñu demee bay def ko ti ñaawteef ay samba boy di song ay casque bleu ci seen biir base te duñu mën a am ay jumtuwaay yu mën a tax ñu riposte defante kook samba yooye ñooñee ku leen yaakaar ci ñuy défendre askan wi yaa ngi nax sa bopp mbokk ak mbokkoo mi ngi xeeñ ci diggante Aminata Touré ak Ousmane Sonko ubbil direct news njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko ak Aminata Touré journal bi nee nañu gisee nañu àllarba ji weesu ca Sali ga ci Mbuur fa la ñu gisee gise bi guddi la am ancien directeur cabinet Abdoulaye Wade ba woon di Habib Sy journal bi nee nañu moo dox yëf yi ba mu am direct news di laaj kii di Sonko la ñuy nas kuy nas kuy noccee ay ci moom yëral mu njëkk journal lay fo cokkaas yi Maguette Sène yéenekaay yi xëyee nemmeeku tuur bi Ousmane Sonko di def maire Malicounda bi di Maguette seen directeur général bu kudd nemmeeku tuur lëndëm la ko tuddee wal Walf Quotidien xëy di ñu leeralal taxawaayu opposition bi ci réew mi seen digg ak premier ministre bu Sénégal Amadou Ba pression bu rëy yéenekaay bi nee nañu moom la ñu ko tekk ci wàllu loi de règlement bi ak it mbiri déclaration politique générale am bi scandale général L'Observateur nee nañu moo am ci ngëriñ ga ca Mbuur góor jigéen moo fa doon doxaan nijaayam ba mu jaral ko mu ko téléphone soppi baatam di jigéen jigéen lu ngir ootal ko